cant ak ngërëm ñeel na leen ami site internet réew mi TV nañu leen bu baax jaajëfal leen ci safoo bi ngeen safoo seen site internet bi li ci gën a fës dañ koy do rek levée de fonds bi nga xamante ne rek daal nañ koy amal foofa ca diwaan bu France ginnaaw bu ñuy collecté rek lu toll ci cent quatre-vingt-dix mille euros toll ci cent vingt-cinq millions de francs CFA yoo xamante ne rek na mun nañ koo jox kii di Ousmane Sonko Pastef France nag dafa ci ne ab mëninam mbir mu lu mel nag ñu ngi ko daal di rek xamle ci seen page Facebook bi nga daal di ci yokk comme hashtag Focus 2024 Sonko président 2024 Ousmane Sonko euh, président bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wutali diwaan bu seen Assainies nekk démb ginnaaw rek ba kuréel géey di Benno Bokk Yaakaar doon fa amal nag euh, seen ab meeting Amadou Ba ak ñamu àndal waaye nag boobule meeting daal daal dinay géey lool ndax nag ba vingt heures ci guddi rek gisuñu fa benn picc lu du xottu baas ak li nga xamante ne rek moom mooy ay chaise waaye gisuñu fa benn nit mu mel ni rek jamono ji nag askanu Sénégal